jërëjëf mbokku internet waa Actubuzz ñoo amati mbégte ak kontante saa su nekk di dox si li xamante ne mooy seen yitte yitte jaam ñi te ki nga xamante ne mooy réew mi kii nga xamante ne tey waxtaan dañ koy bàyyi mu nuyoo ak ki xamante ne mooy mbokku internetu Actubuzz docteur ñu ngi lay nuyu di la baalu àq nag parce que gëj gisee depuis ci li nga xamante ne mooy ci weeru weeru koor geeg yi nga xam ne jàll nañ fi ñu ngi lay baalu àq bu baax a a baax. man tamit leen baalu àq man baal naa leen. Mm-hmm. di sakku aussi yi ñu baal ma àq bu baax. Mm-hmm. di leen nuyu leen ne asalaamaaleykum wa rahmatullah. Mm-hmm. jërëjëf docteur ñu fas yéene dugg tey ci waxtaan li nga xamante ne mooy ci côté loo xamante ne mooy ci ne tout le temps nekk na loo xamante ne jamono ji lu sonal nit ñi la te ban façon taxawaay nga ciy def. colopathie moom je crois que léegi ñëpp xam nañ ne mën naa ko faj. pour ne pas dire que man rek koy faj sax. Mhm. benn prise ngay def mu jeex alors que tubaab yi dañuy naan du wér. waaw bari na si dañ lay naan colopathie fonctionnelle wala colopathie chronique du wér. Mhm. mais man benn prise quinze mille ngay fay. Mhm. biir bi set wecc quoi colon bi yëpp set wecc. et puis c'est li muy def ci nit dafa bëri. colopathie mooy indi moom laay tuddee ndeyu feebar yi. parce que colopathie ku ko am say tànk di tàng ci suuf. colopathie ku ko am day rétrécir sa sexe sa awra day tuuti mm-hmm. colopathie ku ko am sa ndigg day métti mm-hmm. tout le temps colopathie mm-hmm. ku ko am sa bopp day métti le temps colopathie ku ko am sa bët day lëndëm colopathie ku ko am sa gémmiñ day xeeñ colopathie ku ko am eh, di la jox hémorroïde wala nag man par exemple li ñuy naan dama aay ci hémorroïde yëpp c'est parce que du ma faj hémorroïde fekk raxasuma biir bi képp ku la faj biir bi faju la da tane mais doo wér parce que li indi feebar bi mu ngi foofu mooy colopathie bi. Mm-hmm. colopathie boo ko amee booy sëgg lu bëri. Mm-hmm. dina la jox hernie discale. Mm-hmm. colopathie day joxe hernie yatal. colopathie day joxe hernie inguinale. colopathie bu yàggee ci yow en tant que jigéen fekk ngay lekk ay madda walla ay daqaar. lay jox ay kist wala ay fibrome. donc colopathie lu muy def ci nit lu bëri la colopathie da lay sëqat loo même ñii di sëqat deux ans trois ans ñu naan façon garab bu ne duñu wér mm-hmm. man bu ñëwee ci man balaa ma leen di jox garab sëqat damay njëkk raxas biir bi mm-hmm. donc Abdoulaye Diallo moom ci samay faj ci biir laay njëkkee mm-hmm. même ngóora ñi ngay gis ñu impuissant yëpp te ñuy naan garab bu ne duñu fexe ba am seen ngóor c'est parce que raxasuñu seen biir yi man damay raxas sa biir ba pare soo amee siti ma faj ko ba pare parce que siti bi day tax ngay gaaw a daanu siti bi day tax sa man yu yàqu ba doo mun am doom moo tax même su may faj man yu nit dama lay faj siti boo raxas sa biir léegi nag boo bu ma la fajul siti du ma la faj éjaculation précoce ah, bu ma raxasul sa biir du ma la faj puissance sexuelle bu ma la raxasul sa biir doo am sa sexe bon mënuma nag di guddal awra loolu moom gëwuma ko sax man. Mm. mais ku awram par exemple gàtt. Mm. colopathie bi ngay jël trois fois chaque quinze jours ngay jël ko benn yoon. Mm. voilà lii laa xam ci colopathie xam naa am na lu ma fàtte mais comme dama bëgg émission bi gàtt aussi. voilà pour pour te moom fii laa mën a yem. dëgg la kon colopathie nekk na loo xamante ni comme li nga wax sànq mooy ndeyu feebar yi parce que li nga yëpp fekkee colopathie moo ko ëmb bi dina benn yoon ngay naan garab bi 15000 lay jar benn yoon. benn yoon mm. da gis ko ñëw jënd 50 sachet da nga ñëw ko ñëw famille am yëpp. Mm-hmm. waaw c'est renouvelable nag une fois par xam nga tubaab yi dañuy naan nit war na raxas biiram chaque trois mois benn yoon. ñun nag ak li ñuy lekk yëpp yaboo yi. Mm-hmm. gejj yi mm-hmm. nettatu yi yéet yi tout ça. ak euh, façon tëgg yi ñuy tëggee xam nga mooy loolu. wala dibi ñuy lekk nga xam ne xam nga. fumée bi. grillage fi ñu koy lakkee tout ça mm-hmm. boo naanee garab boobu day raxas mbaq bi raxas biir bi complètement mm-hmm. xam nga te parfois même cholestérol bu biir setul da ngay am cholestérol même cholestérol par exemple man duma ko faj fekk raxasum sa biir parce que il faut nga raxas biir bi dindi graisse bi nekk ci butit yi mm-hmm. xam nga mu ngi mel ni boo feesee sa xar gis nga butit yi ñu béyee graisse loolu baaxul ci doomu aadama baaxul da lay gaaw a rey waaw yooyu yëpp poison bi nekk ci biir bi yëpp day génn. voilà man dafa dañuy gis nit ñoo xam ne dañuy biir yu rëy day bari ci jigéen ñi tamit. waaw biir biir bu ci jigéen mën na nekk fibrome ñun fibrome jarul sax ngay opérer da ngay ñëw bu rëyul yenn rëyaay yi. Mhm. mën nga gaaw yor ci 3 mois 3 fois 4 semaines. Hmm. mais damay njëkk raxas biir bi doog faj fibrome bi. Hmm. wala 4 mois maximum. mais bu am na nu muy réer dama lay bëgg a noppal man la demal nga opérer ko benn yoon. Hmm. mu jeex mais bu la neexee nag nga naan garab cinq mois nga faju wala cinq fois quatre semaines bii bi hmm. di la jox indigestion. boo lekkee du rees. Hmm. colopathie bi mun na la jox reflux gastrique. colopathie day dem ba jox la ulcère fàtte naa loolu. ulcère ulcère mooy fii. nga am fi góom. muy répondre fii. mooy am nga fi góom góom ci estomac bi loolu mooy ulcère d'estomac mm. am naa estomac mooy amul góom mais estomac bi mooy mett léegi nag colopathie bi bu ñëwee mm. lekk yi bu bu mënul euh, broyé bu baax mm. dangay gis remonté yi ak lekk yi ñuy kiyee ba bëtti butit yi nga am ulcère comprendre nga donc colopathie même booy faj ulcère da njëkk a faj colopathie ba pare même asthme du ko faj fekk fajuma colopathie bi parce que déclencheur bi ci mmh. biir bi la nekk comme ni ma la waxee sànq rek mmh. sëqët bu bëri bi mmh. ci biir bi la nekk da ngay raxas biir bi fu doog a faj sëqët bi voilà pourquoi je suis le meilleur comme surtout période bi ñu nekk période bi ngi dañuy gis ne asthme bi day ëpp lu muy sonal fi mu ne nii nit ñi bu baree bëri actuellement boo xoolee am na ñu bëri obligé la ñuy takkal oxygène waaw asthme nag dafa am trois façons asthme dafa am allergique dafa am sportif dafa am chronique waaw man nag dinaa faj yëpp asthme par exemple am na am na ñoo xam ne dañu am asthme dañuy sëqët rek Mm-hmm. am ñoo xamante ni amuñ sax asma fatt dënn lañu am dënn bu fatt mm-hmm. loolu tamit dañ koy faj dënn bu métti ak dënn bu fatt aussi bokkut mm-hmm. yooyu yëpp jàll da koy faj waaw dañ dégg dafa ko bon tubaab tubaab kay amul mu mën a faj sax hmm? tubaab man de gisuma lu tubaab faj des fois dañu fi indi lu feer boo xam day jaaxal des fois sax médecin ñu indil ko man li may faj yëpp dafa jaaxal tubaab yi colopathie dèjà wax naa ko ci léegi dafa jaaxal tubaab bi. Hmm. hémorroïde mënuñ ko ay dalfon rek la lay jox. waaw tubaab hmm. xamul luy siti. Hmm. problème de spermogramme boo ko defee nga am azoospermie wala asténospermie wala téranospermie wala tétranospermie wala euh, oligospermie wala nécrospermie wala hypospermie wala hyperspermie mënuñ ko faj. ils sont forts nag vraiment wax dëgg yàlla ci ay visite man par exemple du ma visite du ma consulter ils sont forts ci scanner ils font tubaab mënul faj puissance sexuelle ana garab bu nekk euh, ci ñoom boo xamante ne boo ko naanee sa sa ngóor day wér déedéet aphrodisiaque lañ lay jox nga jóg benn guddi rek mu jeex. Mm-hmm. ah mais jeex am na ñu faj. hernie discale dañ lay naan opère mën na lay faj da ngay naan garab quatre fois quatre semaines mu jeex nerf bi décoincé wu nerf sciatique ñoom mënuñ ko faj man trois fois quatre trois fois quatre semaines douze semaines nga wér arthrose mënuñ ko faj. Mm-hmm. et parce xamuñu luy siti mooy indi arthrose moom mooy wóolu yukki yi. Hmm. xamuñu ko existe existé wu si vocabulaire français. Hmm. Eh, man dama koy faj ci trois fois quatre semaines rhumatisme mënuñ ko man trois fois quatre semaines polyarthrite rhumatoïde mënuñ ko man dama koy faj. diabète mënuñu ko te dama koy faj hépatite bi xamuñ ci tus. man li ma ci xam xamuñ ko ci léegi samay propos sax la ñuy la ñuy jël léegi di ko reprendre ci euh, envers les patients mais nag si signale que am na ay propos déformés parce que bu ñu nee. am na benn femme euh, médecin xaw ma. Mhm. bu ne ku am hépatite du lekk légume c' pas vrai ku am hépatite légume rek la war a lekk. parce que ku bàyyi lépp lu niin mhm. léegi boo lekkul légume la lekk. Hmm. dañ lay tere jën boo lekkul légume la lekk. kan mooy tere nit lekk légume ak fruits c' la meilleure alimentation. et la meilleure boisson c' est l' eau yooyu mënuñ ko asma mënuñ ko mm-hmm. fibrome bu ñu la opéré wul deux weer trompe dañ lay def lu lu lu lu métti deux fois te du set ana lu tubaab man tubaab lu man nit ku ñuul moo ay man gëwuma tubaab mm-hmm. aspirine sax pour bopp bu métti mm-hmm. est que xam nga aspirine boo koy naan fekk suuro wax naa la nga waxati naa ko te maa njëkk wax gars sax ñu ngi reprendre léegi di may propos aspirine wala paracétamol boo koy naan day fekk tu es en cours de repas boo ko deful c'est une bombe contre le foie dalay jox hépatite ñoom ba léegi xamuñ lan mooy hépatite B lan moo koy indi le premier annoncer l'hépatite B c'est Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et il ne croit pas mm-hmm. benn agèr ko man dama lay gëm eux ils monopole du savoir n'importe quoi yàlla ne wa nunazzil mina al-qur'ani maa huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ci sama alquran bi am na loo xamante ne daf leen di njëriñ pour yërmande ak ak ak faj ak faj mm-hmm. ñoom xamuñu alquran boobu man may naa ni is may c'est di n'importe quoi ñoo ñu ëpp ay garab hmm? ëpp ñu ëpp ñu ay garab léegi nag pour diaboliser notre médecine ñu naan euh, nangam nangam day joxe problème dara rein ñoom que seen garab yi yi muy joxe effet secondaire ñoom garabu tubaab yi. Mm-hmm. moo ëpp. boo amee par exemple polyarthrite rhumatoïde ñu jox la corticoïde yi ngay naan du la di wàññeeku ñoom xam nañu corticoïde yi ba faju polyarthrite rhumatoïde te day indi effet secondaire day euh, indi infection pulmonaire day indi cholestérol day indi diabète. Mm. bii taneloo bii créer beneen feebar loolu loolu noonu la ñuy faj. seen lobby yi arrêté ah, te ñoom bu ñuy faju plante lañuy ñuy lu tax ñun duñu gëm sa suñu bopp et puis ñun on crée mm-hmm. des médicaments on compose des médicaments mm-hmm. ñoom lan lan fu ñu toj théorie rek hmm? des fois nit am indi la feebar boo xamante ne day nekk lu compliqué ci bien sûr même tey am na benn femme bu fi ñëw nga xam ne xaw ma luñ ko opère nag mais mënutul taxaw quoi. revenu hmm. dans le taxi xam nga nit bu dul lekk bu nelaw jeex takk mënul taxaw déjà gis nga mënul jël garab am jabet hmm? léegi yow même mënoo ko sax bindal garab bu muy dem jëli pharmacie pour am appétit hmm. par exemple xam nga. bu ko naan exemple bu naan dinaa moom am na suukar bu naanoon pourtant dina dina mën a lekk dina naraw mais dafa am jabet waru ko jël. tu imagine mhm. il faut mun a jël mu mun a lekk pour mun a naan garab je je pouvais rien j'étais obligé bind paracétamol alxuraan am na ay ay neuf ay yu toppante ci suuratu Shuara. Mhm. yooyu bind def ak beneen. comprendre nga. Mhm. Mm, bu nekk surtout tuur xam nga euh, kii ko euh, mélanger mhm. neef-neef yi. Mhm. ma def ko saafara. nga ci euh, nga ci sangu guux tuuti laal ci quoi fu métti ci rek day dañ. loolu laa ko def pour mu mun a ñibbi pour mu mun a toog au moins ci taxi bi mu jóg tëdd. toog xam nga. je pouvais franchement. am na cas yu ñu may exemple hépatite. e hépatite B am na fu muy dem ba nekk tumeur mooy cirrhose bi dañuy indi cas bi le ventre de la personne est enflé wala tànk yi enflé bët yi jaune nañu mais là je je peux plus rien hmm. je peux plus rien lu dul lu ma lay xool yërëm la xam ne tes jours sont comptés quoi benn cas daal tumeur hmm. bu am bu ko amoon hépatite am am tumeur la sauvé benn xale ba léegi sax mooy il est en cours de traitement un petit de Thiès kooku moom mhm. biñ koy bàyyi ba euh, clinique bi mu nekkoon biñ koy yeewi dañ ñëwoon dans trois jours day dee waaw mais ça fait quatre mois de traitement déjà mu ngi ci de huit mois lay traité wu mhm. doo faral di di jàppale ci côté yenn idée faj yi mais ñoom defar dañu ñëw di sax xam-xam ci yow non pour lan loolu ñoom hmm. dañoo rëy wala je ne les crois mais nag dañuy yónni fi ay nit wax dëgg yàlla am na ay pharmacie boo ñëwee ne hernie discale ngay bëgg jënd ceinture dañ lay dañ lay bind sama yoon demal ci aussi noonu la ñuy def prostate aussi. Mhm. wax dëgg yàlla yaa am pharmacien par exemple à bu ñuy jënd ay cardrox day daan demal docteur Diallo parce que kooku faj naa ko. da lay bind sama numéro yebal la fii. te mhm. fii la taxaw fii fii fii ci table bi. Mhm. yuuxu fii yëpp devant deux cent patients. mu ne ñoom bu ñu fajee nit moo ci nit lay doon waaye kii kenn mënu ko faj. te boobu maa ngi faj prostate quarante mille léegi laa ko def cinquante mille. prostate nag cinq euh, sept la mais six yi laa ciy faj. Hmm. prostate bu am xeer bi mënuma ko mais prostate bu néew prostate bu am góom lu bëri. Hmm. yooyu yëpp dama koy dama faj prostate bu métti te hmm. prostate bu am góom yooyu dama koy dama koy faj mais bu am xeer bi mënuma ko. comprendre léegi dañ may yónni client wax dëgg yàlla diabète aussi dañ may naan demal ci docteur Diallo. wax dëgg yàlla des clients mais ça vient un waaw te gëm naa ni incha allah le prix Nobel de la médecine tôt ou tard yàkkamtiwuma même d'ici dix ans vingt ans mm-hmm. on est en de faire wax dëgg yàlla mm-hmm. man li ma bëgg mooy avoir des résultats mm-hmm. ba ñëpp xam docteur Diallo ma ma ma ma doxaan yi bi ñu ci man su ma paree ma plier samay bagage dem sama dëkk actuellement maa ngi waaj a tabax ay hôtel de grandes résidences là-bas xam nga damay préparer pour ëllëg ni ñuy ni ñuy installer foofu bu gan yi ñëwee fi ñuy dal ils vont non seulement me payer mes hôtels mhm. ils vont payer mes médicaments jënd gerte caaf village bi mhm. jënd ndox ci village bi jënd fataay ci village bi noonu et puis yi aussi am ci dara comprendre nga <laughs> noonu laay booster man mhm. sama village noonu laay seete man sama indépendance village dégg nga ma déggoo ma parce que xam naa kenn du defar suñu village à notre à notre place dégg nga mm-hmm. man je man guddi guddi kanel. Mm-hmm. je nekk kanel. dégg nga mu ma tabax fa nag lu kenn tabaxul foofu. Mm-hmm. oto yi prison yi di dosé yëpp maa ngi ko sandi foofu ci naaj bi sous quarante huit degré. Cadillac yu dijj yi. ñu ngi foofu gaare <laughs> Range Rover Evoque yi ñu ngi foofu GMC <laughs> yu dijj yi. hors ñu ngi foofu. Ah, man foofu foofu rek fan man foofu laa gëm. la. léegi nag je prépare ça. Mhm. quoi que ça man foofu laa jëm fii c'est chez moi. Mhm. j'en suis fier sama titre foncier la. am naa ay titre foncier yu bëri si Dakar. Mhm. mais fële laay tiitaroo man. dégg bu baax donc man loolu laay doxee. am na ku fi ñëwoon tey pour jël benn richesse. Mhm. c' est un immigré sénégalais bon il est même né en France benn mhm. sénégalais la. Mhm. il n'a pas trente cinq ans mu ñëw naan benn richesse ma ne ko non frère. munu la ko jox yow boo amee richesse doxaan jabar jàmbur yi di nga tàll ay oto di jënd ay oto yu xam nga tam nga accidenté ma nekk sabab bi. ma ne ko je nga ñëw nga sangu cat. moo gën góor day sang yaramam man maa daq sang cat ci àdduna 35000 dong ngay fay man loolu laa gëm nga defar sa yaram tout le temps hmm. nit day sangu cat tout le temps chaque 3 mois benn yoon lépp lu la um lu coincé lépp éppi nga liggéey mais bëgg la vie facile ma ne ko sangul cat. il a xam nga j'ai craché sur ces 350 000 affaire bi ko jaaxal hmm. ma ne ko non. man taluma tey lu dul sama bàmmeel man dootuma dund li ma dund ça c'est impossible léegi nag yàlla mënumaa may li ma may yépp mm-hmm. ma bañ a taxaw nag sama sama bàmmeel di ko liggéey di ko liggéeyal il faut ma def dara pour la lumière de ma tombe parce que foofay dëgg mm-hmm. comprends nga mm-hmm. et pour ce faire il faut nga dëggu nga bañ a lekk alalu jàmbur. Mhm. nga bañ a trian gis nga boo déglee sama émission. je comme ça dañuy naan jàll dafa tàng non jàll tàngul jàll dafa re jàll reewul. c'est que je comme ça. su ma paree su ma waxee li ma lay wax nag su bu nit sax ñu xuloo fekk xamal dafa waruloon wér moo tax ñu xuloo ñaan bu nangu la damaa ñaan yàlla ku narul wér yàlla bu ñu déggoo. Mhm. léegi nga dem xamoon yow chance la sax. pour yow mais après tu vas dire qu'il compliqué il est fou il est fekk y a pas c'est pas ça c'est même pas Diallo qui te répondait mhm. comprends nga fi moo tax may naan même kuy ñëw ci man na def ñaari rakka nga ne bu ma narul wér yàlla bu ma gis comme ça boo naree xëy sax nga am benn gàllankoor man dem koy wax sax parce que franchement soigner quelqu'un sans avoir des résultats ça ne sert à rien mhm. man xaalis bu dee xaalis am naa ko te xam naa nu ñuy amee xaalis man bu ma dem man bu ma demee ba pauvre xam naa ni may amee milliard <laughs> te duma pauvre parce que sangu naa garabu richesse bi c'est impossible mu ne ma pauvre <laughs> garab baa ngi demee sangu rek di ko xam nag <laughs> xaalis moom moo may topp ah macha allah man ma topp gis nga fii ma bureau bi man duma gis naaj de hmm. lépp a ñu fekk si su ma gisee naaj ñaari affaire la hmm. may dem juma wala may génn di taal sama oto te góoma de jeex na tàkk ku mën na def ku mënul na bàyyi na bàyyi <laughs> dëgg nga wala dëggoo balaa ngaa laax jaay hmm. laax lekk li ci des nag nit je respecte tout mais xam naa nit mënul rëy ba bàgg ma fii hmm. xam-xam bu dee danga ko yor faale sa xam-xam hmm. man li ma xam as loolu naa ko sa alal je m'en xam naa ne mu doon toog sama kaw ñu toog fii ñu xool fekk yaa ma ëpp alal c'est pas possible je ne pas un Sénégalais buy toog sama kanam fekk moom ëpp alal bu set wej wej wej wej wej ci amul crédit bancaire man je ne rien à personne je n'ai aucune dette ni morale ni financière dégg nga wala déggoo man kenn du ma fëgg di ma naan fay ma Je n'ai même pas besoin de garde-corps. Jamais. Je n'ai même pas besoin de chauffeur. Pour mhm. Et pour quelqu'un qui reçoit 200 personnes par jour, mhm. depuis 6 ans, xam nga kooku ci dëgg la nekk di dugg Auchan ni mu ko neexee di dugg ci marché bi ni mu ko neexee parce que parfois xam nga wax naa la sànq naa ñaar yoon daa koy gis Auchan dama fay dem guddi Hmm. parfois aussi damay xaar ba dix huit heures su ma wàccee ma dem Sandaga mais damay woo client bi euh, sama commerçant bi ma ne ko bul tëjugum na la timis fekk foofu hmm. ma ñëw jënd ay wax mille pièces de wax wala deux mille pièces de wax hmm. parce que dama yor ay magasin wala ñi may jaay vaisselle ma dem jënd vaisselle parce que dama am ay mbokk yoo xamante ne ay chômeur lañu wala ay xarit yoo xamante ne ay chômeur lañu bëgguma ñu toog ma ubbi leen magasin daañu créer emploi dëgg parce que li sànq sax sa biir maa ngi koy dégg li nga expliqué léegi léegi parce que am nga loolu mu ci li nga mën a faj nga ne ma lii mënuma koo faj te ba néew na jamono ji nit koo laaj mun la mënuma lii parce que xaw ma dañuy rey xaw ma nu mu fa demee parce que loolu laaj rek mu ne dañaan mën nañ ko mais tey ci côté benn recherche bi ñuy wax lan moo tax doo ko nangu sangu xale nga koy lan moo waral loolu. wax naa la ko. à hmm. quoi ça sert. Hmm. parce que tout le monde est eh, frère. gis nga Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar man loolu laay dund. Mm-hmm. tu es mon frère. Mm-hmm. keneen ki mon frère. Mm-hmm. man am naa li may am ba pare. damay jàppale nit ñi. moom bu amee. xale la. fëgg de jeunesse bi dal ko. mu doxaan jabaru jaambur yi nag. wala parce que bu dee la femme n'est pas mariage. la copine qu'il aura. et qu'il ne compte pas épouser jabaru jaambur la. defal nga ko tâche. kooku bu demee ba mag toog téye kurusam doom yi di romb di xalaat na moom tëdd na ak ñetti góor ñeenti góor mm-hmm. gàcce la ci moom de mm-hmm. am déet xam naa nag am na jigéen moom dèjà amuñ sax trente ans xam nañu sans góor loolu nag Facebook moo ko indi internet dégg nga ma bon foofu lay xalaate mm-hmm. nga yàq sa àdduna nga bari bakkaar mën nga sax rey sa bopp parce que da ngay bëgg jënd oto bu bu neex. bu rafet. <laughs> nga topp APS bi ni mu neexee nga daw deux cent et quelques kilomètres à l'heure bi toj nga freiné nga dee. fekk fàtte nga sax bu pneu tojee doo freiné gis nga boobaa ku nekk à man. dama ko def. et pour ma payer combien trois cent cinquante man je suis à trois cent cinquante man man sama déjà su ma yeewoo rek deux cent quinze mille dem na ok su ma yeewoo mhm. cent quinze mille génne na dépense parce que je nourris quarante yoo xamante ne cinq mille laa ñu jox par xaw ma leen benn femme laa ci xam depuis cinq ans dégg ma xaw leen sax <laughs> sans compter li may def par jour cay donc mais nag defuma ko pour wonewu fësalu ko sax man par exemple boo moom wayee duma la may xaalis hmm. man géwél sax ñu ñëw sama kër gëwuma loolu ana Cheikh Amar woyati nañ ko ana gaa yu baax yi woyati nañ leen ah que dañoo banque boo amee ñi ñuy ñëw fees sa kër di dina yaa fi ne mm-hmm. boo amatul kenn daw la man je suis dama ñëpp saag yu mu balance les couilles excusez-moi terme mm-hmm. wax naa ko premier audio vidéo bi ma def le mm-hmm. monde peut me traiter de tous les noms il me suffit d'être innocent ma conscience est ma conduite et cette conduite elle est tranquille quand on l'interroge amul luñ ma waxul fii bi ma ne lu Serigne tubaa amul bëgguma ko taalibe bi diw laa woon mais léegi ci Serigne Touba la nekk du lu Serigne Touba amul bëgguma ko mais saaga nañ ma wax nañ ma ba léegi sax ñu ngi dem moo tax léegi on a on a même désactivé les commentaires parce que ñoom rek ñoo ci nekk di saaga. di saaga dëgg ba pare def nañu montage xaw ma lan qu'est-ce que j'avais dit encore. Mhm. on journaliste xaw ma. Mhm. n'importe quoi sama kër gi nga xam ne ay caméra kese la léegi ban kër la man n'importe qui n'a pas accès ma chambre et man damaa dof ba ba journaliste sax man di ma filmé may tëdd ak di ma filmé wala journaliste boobu amul jom mu di filmé boppam xam nga c'est des conneries ñu def benn montage kenn gëmu leen sax <laughs> parce que ñi ma xam-xam nañ ma man ñàkkuma fayda mm-hmm. jigéen boo bëgg ma takk la bu yeboo mu am cinquante cinq femmes. Mm-hmm. ça n'engage que moi. man su ma la doxaan rek dama lay takk am na ay kër am naa fu ma la def ñàkk ma jom de <laughs> dëngam bu baax. parce que man pour man takk jabar moo ma gën a yomb ko njaaloo bi. Mm-hmm. comprendre nga. ak lan nee nañ nañu fi franc-maçon la mm-hmm. jàllul nee nañu fi suul naa sama ndey vivant. l'effectif boobu parce que dama ne woon suul sa ndey mooy defal ko lépp loo ko war a defal. ci hmm. àdduna climatisation xaalis bu doy yére yu rafet frigo bar ci biir néegam tout loolu mooy suul sa ndey mais du du du du nekk doo xaar bi mu dee nga def ci moom suuf. ma ne ko man de bu dee loolu suul naa sama de parce que defal naa ko lépp lu doomu aadama defal ndeyam. ñu dagg loolu lu ne wax nañu ko. te boobu bu mënoon ñëwaat ci sama aduna. man mm. temps boobu bu mënoon ñëwaat sama aduna. Mm. billahi damay jël parce que c' était le moment où j'ai gagné plus ma vie barke Seydina Mohamed. murid yëpp a ma faral moo tax ci saa si laa jëndi kër Touba ma ne Touba rek. ma dem ba suñu dëkk toog la sama famille benn tabaski ma ne leen su ma dee. Mm. suul le ma sama benn rek la hmm, Ablaye foofu dafa sori <laughs> moom pour moom dee naa ba pare. Hmm. ma ne ko ba bu la dama leen ñaan rek ngir yàlla yent bi sandileel ma rek ci mbalit xaj yi lekk ma man daal da ngeen ma sànni même xaj xaju tuubaay bu ma lekkee rek man man man dem naa àjjana. dem naa àjjana. waaw ah, parce que je n'ai Bamba m'a tout donné. Hmm. tout et dois rendre grâce à Dieu et rendre agression bi ñu war a agression li ko waral mooy yar amatul ci dëkk bi hmm. ça de un kenn yaratul sa doom léegi comme ni ñuy waxee njabootu kanaal la hmm. xale yi ñuy jiitu mag ñuy topp ci ça déjà y a plus d'éducation au Sénégal on tous perdu nos valeurs de trois kenn ragatul yàlla hmm. de quatre bi bëri fii chômage bi bëri fii voilà quoi am na leneen loo xamante ne man bëgguma ko sax wax quoi parce que quand tu entres au champ nga gis benn xale bu jigéen yow mu leneen kii li muy liggéey amu ci cent mille francs mu def achat de trois cent mille ngay gis hmm? mm-hmm. bu génnee ci buntu Auchan bi ñu dal ci kawam danga doon dépenser lu xaraam lu xaraam ñëw dindi lu xaraam yi <laughs> man pour man noonu laa ko gisee la souffrance hmm. et manque d'éducation xam nga il faut nga éduquer nga mën a ragal yàlla bu ñu ne éducation mooy yar yar bu ñu ko waxee mooy jàngal nit hmm. jàngal nit diinam on perdu nos valeurs wax naa ko sànq hmm. xamuñu lu nekk ci lekk dërëmu jàmbur est-ce que xam nga un franc waxuma la cinq franc de un franc boo lekkal nit day assombrir sa tombe billaahi boo tëddee doo tali nit ñi gëmuñu loolu xamuñu loolu bu ñu xamoon lu nañ mooy tàllu jàmbur gis nga téeméer bee ngay gis ne fii lañ ko fore jamono passé mi foral ma ko tegal ma ko fee man du ko laal alalu jàmbur la su fii bi une semaine bu réclamé bu ñu fi réclamé ma saraxal ko ko mm-hmm. dégg nga ah, ma